avait 47 mais ci élection présidentielle yi dem nañu ba am. ba am 57. 57 bon xeyna amna am na yeneen facteurs ci intervenir suñ ci bëggee mën nañ ci ñëwaat mais dal xeyna division bobu semblant division bobu tamit amna lu positif lo xamni mom mom la indi. deug la mbokk yi ñuy fàttali rek tay ñu ngi am comme émission comme comme euh, invité ki nga xamanteni moy mooy euh, Pape Momar Gueye euh, di ko nga xamanteni acteur de de de de acteur social la nek aussi en même temps koo xam ni tamit dafay les politique ci biir mais bo xolé ba ci biir li nek ci ci social mo ëpp li muy def ci politique ñuy fàttali nga tay mom la ñam comme invité Pape. dafa am tamit ben ben ben lu nga xamante ni dañ ko ràññetle sur le plan sportif euh, ñu gis ñu Tivaouane dafa xaw sohe, sooxe sur le plan sportif euh, te loolu ñu am ay ay ay ay ay ñu nga xamante ni ñu ngi fi ci am taxawaay te amuñu ko ci lan nga yaakaar ni tey am pour que sur le plan sportif bi nga xamante ni la jeunesse bi te nga xam am nañ ci yaakaar bi lan nga ni la def pour que ñoom ñu gis ci seen bopp bu baax a baax waaw sport moom damay sawar di ci wax parce que bokk na aussi ci sama ay domaines yu ma bëgg lool euh, bi ma football. Euh, parcours li ma ma jël fa ay coupe yu baree bari ànd woon ko ak sama ay mag yoo xam ne ci jamono boobu ñoo ko daan def bi ma ci jógee aussi ma yor ASC jàmbaar je pense que jëlee naa ko fu fu fu fu fu xaw a fu xaw a xóot egg ak moom fu soree sori loolu aussi bokk nañ ci palmarès bi nga xam ni moom la ñuy revendiquer euh, benn moment tamit ma jàpp ne euh, wax dëgg yàlla xëy na tolloon naa foo xam ni mënatuma continuer di nekk président jàmbaar ma nekk membre simple di leen jàppale mais ma dugg tamit biir UST parce que man foofu aussi foofu laay exercer xëy na jot gi du may toujours ñuy teew ci réunion yi mais daal man maa ngi ci mais jàpp naa ne euh, Tivaouane ak ni mu toll euh, sur le plan sportif bu ñu fexe woon dajale force yi dina gën a yombalal lu bari parce que boo xoolee benn mama euh, ASC Kuli mu ngi fi di exercer Kayor Foot mon fils d'exercer, di exercer UST euh, di exercer donc quelque part euh, dispersion force yoyu mën na nekk lu ñu yàqal dafay affaiblir donc euh, le monde sportif au niveau de Tivaouane donc buñ ñu mënoon a fexe daal ba ñu dajalo mu nek ben équipe mu nek ben club kenn ku ci ne force ba nga am ñi am expérience ñi am ay moyens ñu bolé ko je pense que dina dina mën am lo xam aussi mom lay mom lay mom lay jural sport bi au niveau de Tivaouane leneen li aussi moy stade bi il faut le dire bo ba légui ñu ngi revendiquer euh, gazon parce que football ci gannaaw dafa xewi quoi non dafa xewi dafa xewi donc je pense que il est temps vraiment ñu taxaw ci parce que Tivaouane bo xolé mëno fé tuddu dancing mëno fé tuddu boîte de nuit pratiquement amul benen loisir lu sport donc dafa wara nek une occasion ñu ñu ñu taxaw ci ba am stade bo xamné sax dina gëna rafet bi dina gëna dina gëna jëmmé bi muy sur le plan football di sur le plan ñi nga xamné ñoy def taekwondo dañuy am ay problème am fo xamné ne fa la ñuy exercer wa handball club dem nañ fi ba ba ba ba voilà dog doguma la doguma la mais dañu amone ñoom sax dañu amoon euh, problème financier. bi nga xamante ni tey dañu demoon anticiper participer ci nga xamante ni mooy euh, euh, Coupe d'Afrique bi nga xamante ni moom lañ demoon qualifié ko euh, ñu am ci problème mu problème mu xaalis te ñu gis ni ci ci fii lañ dëkk nekk fi ak ces maigres moyens yi nga xamante ni moom la ñu am dem ba décrocher qualification bi dem foofu jël Coupe du Sénégal loolu. waroon motiver nit yi wala ñu motiver les les les autorités politiques yi nga xam ñoo fi nek té am loxo bu jëm ci au niveau supérieur ñu mën ñu dimbali ci li nga xamante ni euh, euh mbirum xaaliss mi nga xamante ni moo sooxeel tey jii seen qualification bamu ñu dem au niveau de l'Afrique donc euh, lan mo ci sa xalat par rapport à ça. tu as utilisé un mot intéressant moy plaidoyer parce que affaire bi du du xaaliss bu ñu jël ci poos mom moo koy man biñu ñëwé ñëwee seet si ma la ma ko dama ci sax rus parce que xam ni ay millions lañu soxla lolu les autorités ñoo wara def le plaidoyer té dañ ko wara négocier on a des de de de grandes sociétés qui sont ici ci département bi mais war nañoo mëna négocier ak ñom ba waxuma la commune bi mais département bi ben club bu fi mëna bu wara a génn pour dem ay compétition sur le plan national sax la waxuma la sax international mais même sur le plan national mom enveloppe bo xam dañ ko wara a ci sen responsabilité euh, sociétale d'entreprise au moins ñuy accompagner ñooñu mais ICS mënu fe nek ay MDL nek fi ay yeneen société nek fi club jogé Tivaouane wara dem participer à une compétition internationale ñu nek fi di ket di dajale ay xaliss dem fa nek ci ay difficultés ça c'est pas normal c'est des choses yo xamné que il faut mu dañ donc le sport de manière générale il faut que nous le ko en main parce que comme je l'ai dit Tivaouane loolu rek moo fi am sport rek am c'est une occasion de canaliser la jeunesse Nous nga que c'est ce rek mooy seen àdduna ce qu'on ñuy dox guddi il faut les motiver il faut les encourager waxuma la euh, euh, avant compétition mais mais gars yi fan la entraîner tu te dis que ni mais fii nit bu fi faxasaloo gañu leneen mën na ko fi arriver c'est des choses yo xamné dañ ko wara régler dañ ko wara dépasser. mais dañ ko wara régler kan mo wara nek à mesure de le régler kan kan moy ki nga xam moy la principale la personne principale concernée bi nga xamné tay bo meuna régler lolu non xam nga xam naa ne nga wax lo mais bu ñuy wax commune. <laughs> mais la commune am ko ko jité kan moko jité mais c'est le maire bien évidemment donc c'est des questions yo xamné il doit les prendre en main du caaginu dañuy toog rek ba équipe bi war na dem war na dem Maroc war na wala dem feulé ñu génné ci xaalisu commune bi parce que lolu ñu leen jox aussi ci xaalisu commune bi la génné mais c'est à peu près insignifiant par rapport à leurs besoins. mais ci bir il faut anticiper. mais ci bir ci bir ci bir euh, ci bir commission yi ngeen am ci bir euh, conseil municipal am ci yo xamné ni commission sportive la. mais commission yi pour man ba bari na ci ay commission yo xam permettre ñu leen véritablement ñu jouer son rôle parce que commission euh, du question rek dafa wara apporter un rôle de de de conseil mais dañ ko wara a jox dolé jox len feuille de route parce que le maire aussi son rôle c'est ça commission bu ci né ñu né la yow li lañuy xaar ci yow permettre len aussi ñu am ay audience ay rendez-vous ak ay personnalités fu mel comme je l'ai dit ay ICS ak yooyu woo leen ne leen mais dafa am commission pour xam ne dañ fi war ñëw ak sama équipe pour discuter sur telle question telle question ma bëggoon ngeen recevoir l'en. bu ko faire ñooñu dinañ jël ces questions là en main au nom du maire au nom du conseil municipal. man sama gis-gis ci ci ci gestion sport bi man loolu la mooy am na lu sooxe te lo xam jeunesse bi wala ñi nekk ci dans le monde sportif ñu ko défal sen bop il faut que donc les autorités xoolaat par rapport à ces questions là ñu gën ci duggal loxo comme je l'ai dit tu lenen amu fi tey boo un match bu fi amé wala lenen sa yaram day daw mais combien de fois le président de la République ñëw na Tivaouane parce que nous on a une occasion président di fi chaque année ou bien même parfois deux fois ou trois fois mais nañu def le plaidoyer auprès de lui et je me dis que bi mi def bi mi def euh, bi campagne électorale il a été à mais jamais je n'ai entendu dire que ni neko stade nga nek nous nga nek que gis nga état bi ni mu mel ñu ngi lay ñaan ñun dinañ la jappalé ñun wa ba nga gagner, mais ñu ngi lay ñaan bis bo gagner nga bayyi xel suñu stade bi gamu, hôpital on a l'occasion de lui dire de lui montrer mais nous, ko koy parce que amna lo il faut le dire et il faut le reconnaître commune ko parce que une commune qui a un budget d'à am na question yoo xam mënu ko jël en compte. dëgg la c'est pour ñëw ci loolu dañu gis nii li nga wax nii da nga da nga loog tama lanc mooy commune mënu ko ci biir loolu ni ko commune ñàkkee mën daf ci am ñu nga xamante ni da ci ay maire yu bari li doxal seen dëkk dafay am ay partenariat yuy def euh, te loolu man dama ko gisagul Tivaouane depuis que mu mu mu mu mu maire bi taxaw ba tey te loolu bokk na ci li mën a doxal dëkk. ndax Tivaouane xam nañ ni ni mu mel ak li mu am ci ci ay ay ay valeur bari na ñu nga xamanteni yakamti nañu pour ñu pour ñu pour ñu ba ñom partenariat pour ñu mëna au moins liggéey Tivaouane ci lolu amna ci ñu nga xamanteni am nañ projet yooyu ci lolu amna ci ñu nga xamanteni am mën nañu trouver partenariat yooyu tet xamna ni da lañ ko proposer le maire ci ci ci affaire yi demee noonu réaction par rapport à ça lan la waron doon wala lan la doon ci bo len waxtaan ak mom ba bari ci lolu waaw souvent dinaa dégg ay autorité ay kilifa diine fii ci Tivaouane parce que ñoom aussi ñoo gën a bëgg dëkk bi ñëpp dañ ci am ay xalaat am ci ay ay ay carnet d'adresse am ci ay nit ñu bari ñoo xam ne ñoom xam nañ leen ñoo xam ne tey mën nañ leen a démarcher ñu indi ay ay ay ay ay ay yu baree bari fii ci dëkk bi bon mais parfois nga gis ci diw nit mu ne la man kat demoon naa rencontrer seen maire waxtaanoon naa ak man moom sur telle question mais amul suite mais rappeler aussi aussi commission coopération décentralisée qui a été woon pratiquement le maire daf ko jël compétences. ko ci ay compétences. parce que amul kenn personne qui ne qu'il la jël commission boobu tek ko ci sa pour nga donc chaque fois ils te disent que ni sollicité euh, le maire. mën ne xam kan la non xam nga am na yoo xam ne ay kilifa peut-être euh, du du du jar ñuy tudd seen tur naan kilifa di mais beaucoup na ci daal ay ay ay ay ay ñoo plaindre par rapport à ça te bu yàggee nag day daal di doon loo finalement négligence lay doon te comme tu l'as dit euh, coopération décentralisée mooy permettre communes de yenn yu bëree bëri ñu ko réaliser et je rappelle que tu es membre de l'association des villes religieuses chaque année dañuy jël xaalis cotiser ko foofu mais ñun suñu mandature boog dégguñu benn yoon ñu ne sommet bi am na mairie Tivaouane yabal na fa délégation te yooyu dañ faa war di yónnee. te boo yónnee nga boole ci ay ay ay yeneen autorités yoo xam ne ñu ngi fii ci dëkk bi ak ñoo xam ne xam nañu foofu ñenn ñi fa la ñu jànge dellu siwaat jànge ay Soudan jànge ay feneen ils sont nombreux am ay xam-xam mën laa réaliser ay projet mën mën laa defal ay traduction ne la ñii xam naa seen mentalité projet yi ak yi nga leen di mën a proposer ñu def ko mais malheureusement cette synergie là boo xam ne dañ ciy boole acteurs yi ñi nga xam ne ñëpp am nañ bëgg-bëgg bi am nañu xalaat bi léeg-léeg nit dina am bëgg-bëgg du am sax peut-être temps bi mais yow yaa koy provoqué seeti ko mankat kat diw nangam nangam la ñu bëgg ci Tivaouane lan ngeen ci mën ku ci ne jox la ci xalaat tey bu ñu lay wax la di des des autorités religieuses ñi nga xam ne ñu sant si lañu rek wala ñu sant ñang wala jóob wala wala wele nekk fi am ay relation ak ay ay ay maire yu am doole ak feneen ak feneen kenn xamul nu mu toll

commerçants marocains yi indi fa ay marakis ak ay jàllaabeeg moi je néglige cela lenen n'est pas xaar par rapport à coopération et ça j'aurai le courage de le dire et je l'ai toujours dit commission de gestion du il dafa wara am. parce que parce que deuguma la mais Pape boo tu as rentrée grand am par rapport à ma premier jour Bourdou. ba dernier jour bu ba 5 jours après tabas après gamu mu don euh, rentrée bu am solo ci xaalis man gisuma ci lenn lo nga xamanteni tay taxna suñu dekk bi jëm am dem sekk tank jëm ci kanam par rapport ak lolu te lolu di lu am solo ci dekk buñu ñu ba am ko yalla defal ñuko ko warna ni war naa tax am sa ben avancée bo xamné nit dañ xam ne lii ci li la jóge ci li lay dem bañu organiser ko de de de de sorte en termes de recette il indi 30 30 millions ma wax la j'ai une fois dit en conseil municipal man man dama et quand j'ai parlé de 200 millions père bi fi il ne faut pas il ne faut pas rêver mais tay y 30 millions la gi di indi dana le dafa touti ñun xam nañu gamu gi lu muy capitaliser c'est un label un label nak il faut il faut il faut nga xol nan ngay meuna fexé ba ba ba tiire ci ay profit mu mu dellu ci commune bi mais buñu deful une commission ñi am xam-xam ñi am bëgg-bëgg ñi am yéene kenn ku ne indi ci xalaatam mais du sorti? te ak légui ñu ngi koy revendiquer mais il faut le dire jusqu'à présent lolu taxawagul euh, am amna jour bi mako waxé conseil municipal ñu ne ma non non lolu dafa ëpp yaa a un quelque un membre du conseil municipal il a été courageux Mansour jóg ne man nañ ma jaay gàmm gi 300 millions bu ñu ma ko jaayee 300 millions dinaa dugal 300 millions dinaa ci am bénéfice. donc kooku am na lu nekk ci boppam. ak ñeneen ak ñeneen muy ñun donc loolu buñ ko génnewul tant que génnewuñ ko toog def ndaje mu mag a mag a mag waa Tivaouane ñëpp ñu invité leen gis nga ki ngay gis mu yore voiture di dem mën na la cee jox xalaat boo xam ne yow dalay jaaxal. mais loolu tant que defuñu ko duñu passer stade ay 30 millions fuñu démé ba ba ba suñu mbokk euh, wa Touba li sëñ Abdou Dan wax rek naan dunu suñuy wujj waaye suñuy nawle lañu di wax ni xeyna Touba mo gëna reuy tu wa pap euh, ñu ñu lan moy sa dernier mot li ñu coroon ci ay waxtu dafa jeex euh, ñuy laaj ñuy wax rek de sa dernier mot. waaw xana sante yalla remercier le Pape Assane yak sa équipe parce que vraiment am ngeen taxaway bu am solo ci dëkk bi. Yen tamit yen ngi xol nan ngeen meuna fexé ba contribuer surtout ci walu bi nga xamni ni mom na ngeen tan muy communication nga xamni ni ku ko réussir réussir nga lepp ku ko ñak tamit pratiquement meun nañ ne amo dara lolu vraiment yag ngeen ci yëngatu ñu leen ci encourager den ñaanal yalla na yalla dëgëral seen taxaway ci lolu su ngeen ko defé eh, da ngeen def li leen war parce que seen ay jur ci lañu leen xam waxuma rek góor gi pa paa bi ci boppam mu nekk euh, vraiment un modèle nekk une fierté pour tout Tivaouane parce que gis nañu ni mu koy defee euh, gis nañu ni mu àndee ak kilifa yi ba yaakaar naa am na bés sëñ mbay xalifa bi ci boppam di ko gërëm euh, mais de la de lui sa maam parce que xam nañ ko parce que comme ni ma koy waxee ñun yàgg nañ ci waawan gis nañu ni mu daan àndee ak ki nga xam ni mooy maam Abdou Aziz Dabakh ak euh, nim ko daan jàppalee ci communication beeg yépp donc lii dafa am solo ñu leen ciy remercier di profito ci weeru koor wi euh, di ñaan yàlla yàlla na yàlla def fi jàmm yàlla na yàlla kàttanal sunu kilifa yi nga xam ne ñoom rek la ñu am muy sunu xalifa sëñ Mbay Mansour ñu di ko nuyu di ko ziar euh, xëy na dinañ am yeneen occasion ñu waxee ci moom parce que kilifa suy dem yow mi nekk taalibe da ngaa war a am lecture booy def ci doxalinam ñu jàng lu bari ci doxalinu sëñ Mbaye Mansour xëy na ku amul reflexion profonde doo ko xam mais philosophe la kuy jàngale la ci lu baree baree bari xëy na bis bu ñu amee yeneen occasion dinañ ci dégtal nit ñi parce que ñun dañoo bëgg bu ñu amee lu ñu liir rek ñu partagé ko ak nit ñi jaare ci moom ziar njabootu Cheikh Sidi Aj Malick yëpp di nuyuwaat Tiwaawan di ñaan yàlla yàlla na yàlla def def fi jàmm yàlla na yàlla xëpp fi ay xéewal ci barke weeru koor wi ak barke mag ñi euh, di woo nit ñi rek encore une fois ci booloo ak defar parce que Tivaouane dafa dafa soxla loolu dëkk la bi nga xam ne comme ni ma ko tàmm di waxee c'est pas une ville ordinaire kon ñun ñëpp war nañoo yëlëb suñu xol di xool nan la ñu mën a fexe pour boole nit ñi nan la ñu mën a fexe pour participer ci defar gi te booy defar ci population yi nga koy jaare d'abord parce que loolu moo jiitu ñuy woo nit ñi rek toujours ci booloo comme niñ ko mag ñi bëggee woon mais avant surtout nag sunu mbokk murit yi ak euh, yeneen communauté yi fi ne ñuy ñaan yàlla rek yàlla na yàlla gën a rataxal diggante yi ba li nga xam ne moom la fi mag ñi sampoon mu continuer di di law bu dee ñun nag sunu wàllu bopp ñu ngi continuer di def sunu ay programme comme niñ ko commencé ak jakarta yi euh, weekend yi yëpp incha allah ci loolu la ñuy dox parce que dañoo bëgg réussir réussir organiser benn CRD bu mag boo xam ne ñëpp dañuy toog Jakarta yi toog ñoom laa ne ñi nga xam ne commencé nañ cee liggéey ñi nga xam ne bokkaguñu ci groupe yi ñoom ñëpp ñu toogandoo ensemble xool bu ñu woowee commissaire woo préfet woo sapeur pompier woo waa prévention routière ñun ñëpp ñu toog xool nan la ñuy mën a fexe parce que Jakarta dafa bokk ci sociologie Tivaouane transport la bi nga xam ne ñëpp ci ñëpp ci ñëpp ci bénéficié wu man mi léeg-léeg su ma yoru oto dinaa toog xaar clando wala ma xaar kaar mu nar a yàgg ma yàkkamti ma ëpp Jakarta mu yóbbu ma fi mu may yóbbu sunu ay njaboot ci la ñuy dugg di jàngi ji la ñuy def lépp donc ci la bokk donc nañu xool nañ leen leen mën a encadrer ñoom tamit ñun ci loolu la ñuy continuer di dox ñu ngi xool ak jigéen ñi comme ni nga ko waxee am na programme yu bare bare bare yo xam mu ngi suñu kanam ñu ngi xool aussi avec la jeunesse nan lañ leen di mën a encadrer parce que projet d'air bi projet la boo xam ne ay milliards yu bari la mais dafa mel ni nit ñi amuñu information wala xamuñu fu ñuy jaar donc ñun dinañ leen organiser ci loolu dina am yeneen session de formation yoo xam ne prévoir nañ ko incha allah euh, fii ak euh, mois de juin mois de juin, autant pour moi pour xool nan la ñu mën a fexee daal population bi ba le maximum ñu mën leen a jàppale mën leen a encadrer ci suñu kemtalaay kàttan ñu ciy woo nag ñëpp ñi nga xam ni ay intellectuel lañu ay borom xam-xam lañu ñii aussi am nañu moyen lu mu néew néew mën nañ ko cee def ñu fexe daal ba créer Tivaouane loo xam ni euh, ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp. loolu laa doon am kàddu yu ma ci mujjee lancé di nuyu sama mbokk waa association s'appelle alamine Amine parce que man duma wax mukk ba jeexal te tudduma leen ñaanal leen seen taxawaay ñu jàmbaare lañu. am na ñoo xam ne it tamit maa ngi ànd ak ñoom sur le plan politique. mel ni ay ñoom Rasoul ak ñoom euh, Mansour c'est naturel parce que suma ay xarit lañu yoo xam ne yàgg nañu waaw ñoom Ousmane Ndiaye ñoom ci sopel amin la ñuy mu ak ñoom si Cissé

wax dëgg yàlla ñu kontaan ci di ñaan yàlla aussi nga mën a continuer yow tamit di ñu gunge parce que soxla nañu say soxla nañ say xalaat yow ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi biir Tivaouane di nekk ay borom xam-xam di nekk ay boroomu gis-gis. jërëjëf waaw euh, ñuy wax ni que rek kontaan nañ bu baax ci dalal bi nga xam ni moom la ñu Pape Momar Gueye ñëwoon fii tey mu doon seen deuxième euh, partie bi ngeen xamante ni moom moo doon euh, seen émission lu tax ki leen ko doon defal di seen mbokk di seen xarit Papa Assane mbay ñuy wax ni ko rek nii leen koy doxalee saa su nekk ngeen ubbil nu yéen ñi nga xamante ni yéen autorité politique ak religieuse yi nga xamante ni ñoo nekk fi ju Tivaouane ak képp ku mën a doon ci ñu ubbil ñu suñu buntu ñu seen buntu yéen ñi nga xam dañu yéen fi nekk ñun waa TIV info lañ fa nekkal jëmale Tivaouane kanam ak lu ko jëmale kanam ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah